asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis bi nag tey bis bu rëy la ci lislaam bis bu rëy la ci daaru salaam bis bu la ci yoonu murit kër gi nga xam ni fi la Serigne Touba wàccoon bi mu jugee ci géej gi te Cheikh Mouhamadul Mamoun soppiloon ko maam Cheikh Anta soppi gu yéeme. ba mu jógee Ségou def defal ko ci taaxam mu rëy mii def fi li fi nekkoon uufoon fi ay njabootam uufoon fi ay rakkam uufoon fi seexi sëñ gaawaan yi jëf fi jëf ju rëy doomi sëñ Tuubaa yëpp fekk ko fi yoonu murid yëpp daje fi lislaam bépp daje ci kër gi kër gii di kër këru barkeelu di kër goo xam ne patrimoine la ci yoonu murid moom la tey xalifab Cheikh Mamadul Mamoun dim caatam di sëriñ Abou Mouhamed ak soxna Maymuna bintu Xaadim Rasul di ko defaraat yeesal boo xam ne dëppoon ak jamono te dëppoo ak lislaam sëñ Fallou Gala Syll moom sëriñ Cheikh Syll mi nga xam ni euh, ñëpp ko xam ci keppaaru Cheikh Mamadou Mamoun euh, tey yaakaar naa ni taarix la histoire la bu rëy ndax sëñ Modou Mamoun kat ba mu nekkee ci kër gi daan ko defar suñu bàyyi laa ci àndaloon suñu maam la ci àndaloon kon tey nag ñu ànd kook sëriñ Abo jumaa ji moo ko tijji kër gii moo ko yeesalaat kon dafa mel ni maam maamam sëriñ Touba. dugg na ci mbiram farale ko waaye maamam Serigne Gaawaan jox na ko cër Cheikh Mamadou Mamoun baayam sëriñam ba liggéeyloo na ko sëñ Fallou Galas. ok salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Cheikh Anta Samb eh, ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikh na Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahmadul Montaxa mi nga xam ne mooy lépp yoon wi yàlla na ko suñu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram siyaare mbooleem njabootug eh, Serigne Touba gépp waaye di fab sunum nuyoo ak sunum ziar teg ko ci loxol Serigne Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun di ñaan sun borom may ko fan gudd ànd ak wér-gu-yaram siyaar boobu ñu jaarale ko ci jëwriñam di sunu sëriñ di ma alaaji maam Cheikh mu sëriñ Modou Roqee di ñaan sunu borom dolli ko ak wér ak taw di siyaare buntu kër yi sëriñ Modou Mamoun yëpp. sëñ Cheikh Anta wax nga dëgg tey jii ci àllarba ji la ñu fas yéenee ubbi wala boog teg xeer wu jëkk ci yeesalaat kër sëriñ Touba gi nga xam ne moom la Serigne Touba njëkk am ci dëkk bu moomal boppam rafaatale ko rakkam maam Cheikh Anta mu jox ndigal sëriñ Modou Mamoun mu dëkkal ko fi ci at yu yàgg ci atum 1917 ba sunu jamono jee tey jii Serigne Modou Mamoun mosu fee jog ci ndigalul Serigne Touba mosu fee jog ci ndigalul borom gaawaan kër googu nag yeesal nañ ko ay yooni yoon ba ci yeesalaat bu mujj bi nga xam ne ñu ngi koy def euh, Serigne Abo Mohamed di ko yeesal. nga gis ne mbooleem bâtiment yi fi nekkoon yëpp raciné ko ba mu des bâtiment borom gaawaan bi ak bu sëñ Mourou Mamoun bi fas ko yéenee def ay salle de conférence salle de réception ay daluwaayu gan lépp dëppoo ak jamono ba ku ñëw fii xam ne ay piis la woodee taax ma baam Bamba wàccoon biir ak biteeg mat la ya buur ya loolu yaakaar naa ne ku ñëw ci kër gi da nga xam ne kii la sëñ Tuubaa waxoon ne lu njëkk lu nekk yaa ko njëkk am ci réew mi ci xeeti xayta kii du njar ci soow mi sëriñ Abo foofu rek la teg bëtam incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ ànd ak alaaji Ousseynou Mbodj mi nga xam ne moo ne ci wàllu machine bi ñu dugg ci biir ngeen gis délégation yi ak gan ñi fi ñëw waaye dégg tam euh, fi nga xam ne fi la liggéey bi jëm ci entrepreneur bi ak architecte bi ak kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ci kilifa yi nga xam ne alaaji Seex ñoo fi nekk alihi wa saxbihi wa sallama tasliima muayyisan minni shayaatiina al unaas shaqa ala ibliisa maylun lissujuud takabburan ala alxaliimi dil wujuud shaqa ala ibliisa maylun lissujuud takabburan ala alxaliimi dil wujuud يدعه الباقي القديم ذو الخلاف لخلقه لناره بلا خلاف أذله العدل المذل ذو القيام وإنه عن الجنان ذو صيام طرده بكبره ذو الوحدة لجملة النيران يبكي وحده يعتله بالمالك المعاني ذو المعنويات وذو المعاني نقض ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة ما أراده السمع والبصر والكلام أخزته إخزاء به يلام لقادر خير مريد عالم مخجل كل ذي إباء ظالم ilayhi xayyun wa samiicun wa basiir saaqa cadaabahu wa maa lahu nasiir nafa allaciina mutakallimun ilaa gayri jihaati duuna raddin daa ilaa inna shayaatiina alwaraa qad ya'isuu minnii bicismatii wa kullun ab'usu sa'altu man amara bissujuudi كوني ساجدا له بجودي سألت من أمر بالسجود كوني ساجدا له بجودي وشياطين الجن وطردهم إلى غير ذاتي وإلى غير ما اختير لي حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة ترسا وحصنا حصينا لي أبدا عن كل ما يسوء أو يضر أو يغر أو يمكر aw yastadriju aw yastahziu abadan amin bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam yallaahu bilmustafa as-sindiidi yallaahu wa bixaliilika ibrahima yallaahu yallaahu bilmustafa as-sindiidi yallaahu wa bixaliilika ibrahima yallaahu وبكليمك موسى صالح خضر وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوشع إلياس وآدم داود وذي الكفل عيسى لوط يا الله ويوسف وبإسحاق وغيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائك طرا ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفخ إسرافيل قابض أرواح الخلائق عزرائيل يا الله وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأحبار يا الله wa bilsidiqi wa bilfaaruqi summa bidin nuurayni summa abi sibtayni yallaahu bi maalikin dil mazaaya shaafiiyi abi xaniifatin ahmad almahmuudi yallaahu billawxi walqalami almaxfuudi summa bicarshika alcaziimi wa bilkursiyi yallaahu wa bilqur'aani wa bitawraati summa bimaa داود جاء به والروح يا الله بلغ صلاتي وتسليمي عليه له والآل والصحب والأزواج يا الله وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله warud lana kulla di saabin wa di xaranin wa yassiran kulla di taasiiri yallaahu tawwil lana cumranaa saxix lana badanan wa hab lana rushda wattawfiiqa yallaahu wa dammiran kulla acdaa'in tudirru binaa qabla alwusuuli lana yallaahu yallaahu وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وآفة عاهة مع غصة محن زلزلة شدة والفقر يا الله إهانة قلة مع ذلة غلب وفاقة عطش والجوع يا الله وفتنة والوباء والحرق مع غرق والبرق مع سرق والكد الله حر وبرد ونهب كربة نقم ضلالة عرج والغم الله وهامة وخطايا ضالة زلل والمسخ والخسف ثم القذف الله wa gullatin ma junuunin cillatin maradin summa aljudaamayn wannuqsaani yallaahu wa min qabiixati dunyaa summa aaxiratin wa min fuduuxihimaa yallaahu yallaahu yaa man ala kulli shayin qaadirun wa ala alcarshi alcaziimi istawaa bilqahri yallaahu inni sa'altuka qalban xaashi'an mutawaadi'an wa ilman kathiiran nafiya Allahu wa taw fi ma nijaayam jaarale moom rek moom fi jaarale kii di Cheikh Abdou soxna Moominatu moom Cheikh Abdou Khadir nekk ci biir kër gi doy na man Cheikh amatuma commentaire awma benn commentaire doy na doy na dayob li nga yore di la jox dayob li nga yore te di la ko nangulit te di la ko nangulit xam naa yéex na maa ñëw lool xam naa yéex na maa ñëw lool waaye soo ma ne woon fajaru sil fajar lay ñëw waaye Mbàkke doo ma joxoon ni ma fajaru sil fajar lay ñëw fi nga toll ak teguwaay bi la. fi nga toll ak teguwaay bi la. ma teg la fa. mbakke ma teg la fa nag. te man duma teg nit fu mu teguwul. te man du teg nit fu mu teguwul. fa tegu rek. fa mu tegu rek. fi nga tegu. fi nga tegu mbakke. teguwaay bu rëy la. teguwaay bu rëy rëy la. démb trois heures rek. démb 3 heures rek. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh Mouhamadul Mountakha. woona ma. woona ma. ma ne ko dinaa ñëw Daaru mu ne mu ne ko dinaa ñëw Daaru Salaam. ñu waxtaan bu baax. ñu waxtaan bu baax. ci yow ci yow. ci diggante Serigne Touba. di diggante Serigne tuba ak maam Cheikh ak maam Cheikh Anta. diggante maam ya. diggante maam ya. ak maam Cheikh Anta. ak maam Cheikh Anta. isaaratu takfi alal haqi. nee na isaaratu takfi alal haqi. junj doy na borom xel. waaye nag. pësteefub taalibe gi. pësteefub taalibe gi. di dox ba agsi fii. di dox ba agsi fii. ñett yooyu. ñett yooyu. doyoon na. doyoon na. sa sa diggante ak moom. kon nag. kon nag. damaa ñëw rek. damaa ñëw rek. teew si. teew si. njaboot gu teewee ci ca njaboot ga. njaboot gu teewee ca njaboot ga la. taalibe bu teew ca wetu sëriñam. nee taalibe bu teew ca wetu sëriñam. noonu rek laa koy jàppe noonu rek laa koy jàppe ndax noonu la ko sëriñ Touba jàngale ndax noonu la ko sëriñ Touba jàngalee gone yi nañ warmaal seeni mag gone yi nañu warmaal seeni mag mag ñi mag ñi nañ yërëm gone yi nañ yërëm gone yi te jikko yooyu gis ci te jikko yooyu mbàkke nag gis naa ko ci yow sëriñ Abo ba nga man maa yilif ba nga man maa yilif man neexumaa yilif man neexumaa yilif de jikko rek jikko rek kon nag kon nag loolu loolu moo fi andi fi andi waaye ginnaaw ñëw naa nag. waaye ginnaaw ñëw naa nag. fekk fi Cheikh Mouhamadul Bachir. fekk fi Cheikh Mouhamadul Bachir. ak ay kilifaam. ak ay kilifaam. mu yor kaddu yoon wi. mu yor kaddu yoon wi. Eh, wax manoon naa ñàkk. wax sax Mbàkke mënoon naa ñàkk. ndax genn bokk fi ne. ndax genn bokk fi ne. benn pas-pas benn pas-pas moo fi ne. genn taalibe fi ne. genn taalibe fi ne. la sëñ Abdoulaye waxoon ne bu ma ne woon wàcce woon kéem ci sëñ Moustapha Bassir du ma yoralub satala ne li sëñ Abdoulaye waxoon du ma wàcce woon kéem ci sëñ Moustapha Bassir du ma yoral ak satala lépp sëñ Touba la lépp sëriñ Touba la nag ku ci bokk boo amul pas-pas it ne ku ci bokk doo amul pas-pas it bokkoo ci bokkoo ci yoon wi yoonu pas-pas yoon wi yoonu pas-pas la moo may maam Cheikh Anta li maam moo may Cheikh Sidi Mokhtar li mu am maam Cheikh Anta moo may sëñ Modou Mamoun moo may sëñ Modou Mamoun moo may ñi fi toog ñëpp moo may ñi fi nekk ñëpp kon nag kon nag maa ngi wax ci turu bokk yëpp. maa ngi wax ci turu bokk yëpp. ubbile ko Cheikh Mouhamadul Bachir. ko Cheikh Mouhamadul Bachir. muy mboolem ku maam sëñ Mbacke Mor mooy mboolem ku maam Cheikh Anta bokkal sëriñ Mbacke Mor Anta Sali. tàmbalee ko ci sëñ Mbacke Anta. tàmbalee ko ci sëriñ Mbacke Anta Njaañ. ñëw ci sëñ ñëw ci borom Saam. Mam Mor Diarra. jaar ci sëriñ bi. jaar ci sëriñ bi. borom daaru moxti dem ci borom daarul moxti sëñ gaawaan ñëw ci Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Afia Ahmadul Mokhtar Serigne Niang Serigne Afia sëñ Cheikh Coro Serigne Cheikh Coro sëñ Balla Coro Serigne Balla Coro Cheikh Absa Cheikh Absatu Jaxate sëñ Masamba Cheikh Masamba Mbàkke caatum sëñ Morom Sañ njaboot yëpp nee njaboot googu yëpp yaakaar naa yaakaar naa ni ci ndey ak ci baay ci ndey ak ci baay ñaaskanoo ca ballay sa ñaaskanoo ca ballay sa dem ba dem ba ci mam maharam tey boo leen woon tey boo leen woowoon fii ci turu maam Cheikh ci turu maam Cheikh Anta ci turu sëñ Madou Mamoun ci turu Cheikh Mouhamadul Mamoun ak nam ca demee ak nam ca demee defe naa ñëpp dañ la defe naa ni Mbàkke ñëpp dinañ la wuy si yow Serigne Abou Mouhamed dana am ñu la ci mag naam am ñu la ci mag naam mais jikko ji waaye sa jikko ju rafet macha allah mooy mbir mi mooy mbir mi kon nag moo kon nag damaa ñëw rek man damaa ñëw rek bu ma waxee bu ma waxee. mu mel ne ñoo ñu tudd. mu mel ne ñooñu ma tudd. ñëpp a ngi ci jotaay ñëpp a ngi ci jotaay bi nag. ñëpp rafetlu nañu. ñëpp rafetlu nañu. lii nga def lii nga def. ak lii ak ak yi nga def. ne ak yi nga def. ak ni ko Fallou Galas limee. ak ni ko Fallou Galas limee. ci ñi fi jaar. kii ñi fi jaar. jàmbaar yi fi jaar. jàmbaar yi fi jaar. ab yaafus jaaru fi. jaaru fi. waaye sëñ Touba nag. waaye sëñ Touba nag. lu mujj gën a baax. lu mujj gën a baax. moo tax moo tax. nga def loo xam ni. nga def loo xam ni. Eh, taarix du ko fàtte. taarix da Mbàkke du ko fàtte te du la fàtte. loolu nag. loolu nag. moo waral rek ma yëkkati kaddu. moo waral ma yëkkati kaddu. waaye kon du ma ko yëkkati. waaye kon du ma ko yëkkati. bi ñu ma woowee ci yoon wi. bi ñu ma woowee ci yoon wi. dama ne. dama ni. sëñ Abo fu ne. sëñ Abo fu ne. noo nga fa. noo nga fa. doo tudd sëñ Afe. doo tudd sëñ Afe. ndax sëñ euh, borom Darou Salaam mooy kilifaam. ndax sëñ Afe moom borom Darou Salaam mooy kilifaam. bu wér. bu wér. mu ànd moom ci sëñ Touba. mu ànd moom ci sëriñ Touba. ba far ñoom ñaar. ba far ñoom ñaar. kii sax dem ci kilifteef. kii sax dem ci kilifteef. wa baadama naw may hima laamun sama ahni min saati fi ma rusima fanweeri waxtu lañ rawaate. ne fanweeri waxtu lañ rawante. loolu la sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax. loolu la sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana indi. Ah, kuy julli nag. kuy julli nag. ba taaya. ba taaya. Eh, nga nga jóge fa. nga jóge fa. Eh, nga xam ne mënuñu koo wax eh, ki doon seet si. nga xam ne mënuñu ko wax ki mu doon seet si. kon boole ga wér na. kon boole ga wér na. booleeg bokk ga wér na. booleeg bokk ga wér na. booleeg pas-pas ba wér na. booleeg pas-pas ba wér na. boole wutoon sëñ gaawaan ak dara. boole wutoon sëñ gaawaan ak dara. ndax noonu la mbàkke doxe ndax noonu la mbàkke doxe bi fi sëñ bii ne. bi fi sëñ bii ne. ñi nga ànd ak moom bu wér. ñi nga ànd ak moom bu wér. ginnaaw sëriñ bi it. ginnaaw sëriñ bi it. ñu ànd ak borom Darou Mouhty. ñu ànd ak borom Darou Mouhty. ànd ci liggéey bi ànd ci liggéey bi. loolu mooy Mbacke. loolu mooy Mbacke. ci ci ci ci ci toppante rek lañ nekkoon. ci toppante rek lañ nekkoon. loolu nag. loolu nag. ku mel ne nun ku mel ne nun nga xam ne gëmuñu lu dul sëriñ bi nga xam ne gëmuñu lu dul sëriñ bi bëgguñu lu dul moom bëgguñu lu dul sëriñ Tuubaa duñu sañoon duñu sañoon yoon wi yoon wi dafay demee nii rek dafay demee nii rek dara du ko yàq dara du ko yàq dara mënatu ko yàq sax dara mënatu ko yàq sax kenn ku ne fa nga xëyee ndax kenn ku ne fa nga xëyee da ngay defee ne yaay yoon wi da defee ne yaay yoon wi dara amatul dara amatul ah, boo agsee nag boo agsee nag ah, gis ne yoon wi noonu la deme gis ne yoon noonu la demee rek sëñ Abo sëñ Abo bokk yëpp jàpp nañu bokk yëpp jàpp nañu ni ñoo ngi sawet ñoo ngi sawet man nag maa ngi sawet man nag maa ngi sawet bu wér bu wér te man lu may wax lu ne te man lu may wax lu ne na nga ma def na nga ma def ak na ngay téye jotaay sax ak na ngay téye jotaay sax ngir man te man bu la neexoon nga ne ma wàññikul te man bu la neexoon nga ne wàññikul du ma am problème am problème xanaa kay lii sans problème kay lii sans problème ku jox la cër bi ne ku bëgg ma jox la cër bi te mënoo ko am man nga koo am man nga koo am maa ngi sawet liggéey bi maag yow a ngi ci liggéey bi maag yow a ngi ci. incha allah maa ngi ñaan yàlla. nga àggale ko. ba naar yeneen. na la leer ni. Eh, rusloo woo fi nga jóge. rusloo fi nga jóge. rusloo woo say bokk. rusloo woo say bokki taalibe. yal na la yàlla sàmm. aar la aar la. aar njaboot yëpp. aar njabootu sëñ Tuubaa. bàyyi fi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha. yal na ko fi yàlla bàyyi. dama koy wax dama koy wax. ni ko yàlla la fi yàlla bay ndax ku mel ni man. ndax ku mel ni man. du turise ci pas-pas. du turise ci pas-pas. lu ma gëm lu ma gëm. bu ma sañoon mu yàgg fi. bu ma sañoon mu yàgg fi. ndax man du ma ngistal. ndax man du ma ngistal. naa fekk baaxul. naa fekk baaxul. as gor buy gëm. as gor buy gëm. a ne ne ab julit buy gëm murit buy gëm day gëm ne te du jëw du delluwaat ginnaaw loolu nag moo ñu dal ñaanal bu baax ñu ngi lay ñaanal bu baax. di ko ñaanal moom. di ko ñaanal moom. mu yàgg fi. bàyyi na la xel lool. bàyyi na la xel lool de. la ca des nag la ca des nag. waaru sëñ Basiru la. waaru sëñ Basiru la. bu ñu ñëwee. bu ñu ñëwee. dañoo war a toog rek. dañoo war a toog rek nag. déglu ko déglu ko. ndax euh, junj nañ ko léegi. junj nañ ko léegi. sëñ Muntaxa nee na lii ci moom. nee na lii ci moom. waaye lim ma nee na ci moom bari na waaye man mii di sëriñ Moussa Abdoul Akram li ma sëñ mu Mountakha wax ci moom sëñ bas mii bari na lool xam na ko sax moom xam na ko sax mag mu topp ci gone mag mu topp ci gone boo ko nee defal mu def boo nee defal mu def daa am lu tax daa am lu tax de kon Cheikh Basirou kon Cheikh Basirou mm, ñoo ngi lay ñaanal bu baax ñoo ngi lay ñaanal bu baax di ko jaarale sa kilifa di ko jaarale sa kilifa yii ñu bokkal jotaay bi wala say kilifa wala say kilifa di sëriñ Moustapha di la wan ne ne di la wan ni damay defe ne liggéeyu sëñ Abdou Khadir. damay defe ne liggéeyu sëñ Abdou Khadir. am ngeen ci wàll. am ngeen ci wàll. moo waral nag. moo waral nag. cër bii ñu la jox. cër bii ñu la jox. ku la ko jox ku la ko jox. du la gëmee sax du la gëmee sax. ci li ma xam ci yow. ci li ma xam ci yow. ak mbokki taalibe yi murid yi fi teew yépp ñu ngi yëkkati suñu kaddu. mu bàyyi ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha. mii fi tooyee jotaayub Serigne Touba ci kaw jamono te yilif murit yépp ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ku wér ba mottali mbooleem li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba teg nuyoo bi ci loxol Serigne Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ak njabo ak mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gi fi teew yépp rawat rawatina njabootuk cheikh Mouhamadul Mamoun gi fi teew yépp bala maa dugg ci biir kaddu yi nag xanaa ngir ndigal xalaa ngir waaye kon duma fi sañ kon duma fi sañ wax de ndax samay kilifa rek fi nekk ndax samay kilifa rek ñoo fi nekk sëriñ Moustapha Abdoul Akaram leeral na ko léegi tudd ko sëriñ Moustapha moom cheikh Abdoul Khadir siyaare ñëpp kon nag ñu ngi siyaare ñëpp ndax boo duggee ci lim bi da ngay fàtte boo duggee ci lim bi da fàtte wala doo matal kon nag euh, nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxol Serigne Abo nuyoo bi ñu ngi koy jalaat di ko teg ci loxol Serigne Abo ndax Serigne Moussa tudd na ko ndax Serigne Moussa tudd na ko diggam ak Cheikh Mouhamadou Mountakha diggante Serigne Abo mii ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy diggante bu dëgër mooy diggante bu dëgër bu xóot bu xóot boo xam ne wóor na ma ni boo xam ne wóor na ma ni bu Serigne bi amuloon ngant bu Serigne bi amuloon lenn ngant kon du fi yónni kenn kon du jëmmam képp ko fi ko fi doy. ndax xam ngeen ni. ndax xam ngeen ni. màggalub Daaru Salaam gii. màggalub Daaru Salaam gii. dem na ba nekk Sëriñ Tuubaa. dem na ba nekk Sëriñ Tuubaa. te genn genn genn màggal googu lay ñëw. nee genn màggal googu rek lay ñëw. la doon ñëw. ne ne la doon ñëw. muy màggal Daaru Salaam. muy màggal Daaru Salaam. kon xam na li mu seq ak kon moom xam na li mu seq ak sëñ bu. waaye la ko rek. waaye la ko njëkk nag. mooy diggante Serigne Touba. mooy diggante Serigne Touba. ak maam Cheikh Anta. ak maam ndax maam Cheikh Anta. ndax maam Cheikh Anta. dafa bëgg Serigne Touba lool. dafa bëgg Serigne Touba lool. tàmbalee ci waajuram bu tedd tàmbalee ci waajuram bu tedd wa. maam maam Anta Ndiaye. maam Anta Ndiaye waaye ba muy ànd ak Serigne bi. waaye ba muy ànd ak Serigne bi. booba njëbbal xewagul. booba njëbbal xewagul. ba reetaan nañ ko ci Serigne bi ba tey. ba ko ci Serigne ba tey. ndax booba jamono ji melul nii. ndax booba jamono ji melul nii. waaye nag li ko Serigne Touba fayee. waaye li ko Serigne Touba fayee. moo tax jàkk ji ku fi dugg moo tax jàkk ji sëñ bi njëkk am ku ne képp ku fi dugg jàkka ji ku fi dugg ne jàkk ji ku fi dugg da nga xam ne sëñ Tuubaa fay na ko da nga xam ne sëñ Tuubaa fay na waaye itam waaye itam ab cëram ci sëñ Tuubaa ab cëram ci sëñ Tuubaa doy na sëkk doy na sëkk mooy dëkk bi sëriñ Tuubaa njëkk am dëkk bi sëriñ Tuubaa njëkk am jël ko jox ko jël ko jox ko ko te Daaru te Daaru Salaam moo Tuubaa day lenn moo tubaa day lenn boo xoolee ci xasida yi boo xoolee ci xasida yi bari na lool kenn mënu ko lim bari na lool kenn mënu ko lim bi sëñ Touba nekkee Gabon bi sëñ Touba nekkee Gabon fu mu tuddee Daaru Touba ne fu mu tuddee Touba Daaru Salaam la ci Daaru Salaam la ci teg kon fii kon fii dafa bokk ci xol Touba dafa bokk ci xol Touba kon nag kon nag bu sëriñ bi yëkkatee kër gi jox ko maam Cheikh bu sëriñ bi yëkkatee kër gi jox ko maam Cheikh Anta kon loolu kon loolu liñ ci war a njëkk a déggee liñ ci war a njëkk a déggee lu kéemaane la lu kéemaane la mooy sëñ Touba. mooy Serigne Touba. ñàkk gim ñàkk doon nit. ñàkk gim ñàkk doon nit. da feeñ. da cee feeñ de. ndax sarak. ndax sarak. nga am benn dëkk. nga am benn dëkk. yëkkati ko jox ko. yëkkati ko jox ko ko. ak lam àndaloon. ak lam àndaloon. loolu kenn mësu ko dégg ci loolu kenn mësu ko dégg ci àddina. wa yusiruna ala anfusihim. wa yusiruna ala anfusihim. walaw kaana bihim xasaasan walaw kaana. bihim xasaasan bihim xasaasan. waaye ki mu koy defal itam. waaye ki koy defal itam. koo bokkal benn waajur. koo bokkal benn waajur. nangoo doon rakam. nangoo doon rakam. ba nga xam ne taalibe gi taalibe gi la gënal doom gi nga xam ne taalibe gi moo la gënal bokk gi moo la gënal bokk gi moo la gënal bokk gi loolu itam ku àggul ci yàlla mun ko loolu itam ku àggul ci yàlla ku wut yàlla mënu ko sëñ Moussa mii sëñ Moussa Abdoul Karam mii sëñ Moussa Abdoul Khadir sëñ Moussa Abdoul Khadir fekke na ko fekke na ko fu sëñ Abdoul Khadir doon waxee lu sëñ Abdoul Khadir doon waxee fu sëñ Abdoul Khadir doon waxee si ay waxtaan la nag ci ay waxtaan la nag waaye danaa ci dagg benn baat rek waaye danaa ci dagg benn baat rek maam say Seye moo laaj ndax ci wàllu yàlla ndax wax ji day gudd moo tax. ne sañ Maam Mor wax ji day gudd waaye sëñ Maam say Seye ci gàttal moo laajoon ci wàllu yàlla yi. ci wàllu lu sëñ Abdou Khadre doon nettali. lu sëñ Abdou Khadre doon li ci jotaay. nee na sëñ Abdou Khadre ne ma sëñ Gaawande ba mu ko déggee. nee sëñ Gaawande ba mu ko déggee. dana kooka bu ma fekkoon. nee bu ma fekkoon. danaa nangu lam yor danaa nangu lam yor ndax danaa def ku fa ñëw ne ne ne danaa def ku fa ñëw ci nitu yàlla ci nitu yàlla bu la xellee attaaya bu la xellee attaaya nangu la nga yor ne nangu la nga yoon mam Cheikh eh, Mamor Sey ni sëñ bi Mamor Sey ni sëñ bi kon sëñ gaawan wàlliw la kon kon sëñ gaawan wàlliw la mu ne waaw sëñ gaawan mu ne ko waaw waaw sëñ gaawan wàlliw la ci mooy li ci gën a tuuti mooy li ci a tuuti sëñ daana wax ni sëñ Abdou Khadre daana wax ni merum sëñ Touba. merum sëñ Touba. maam Cheikh Anta mosu koo gis. maam Cheikh Anta mosu koo gis. am na am na am na jotaay ci njaareem. am na ab jotaay ci njaareem. boobu maam Cheikh Anta xam nga ni ko yàlla bindee ak daraja ji. nee booba Cheikh Sidi Mokhtar ni ko yàlla bindee ak daraja ji. ak ak ak ak civilisé gi mu civilisé woon. bi mu duggee garam bu bi. duggee garam bu boo fekk ñëpp a toog suuf. fekk boo fekk maam Cheikh toog. fekk sëriñ bi génn génnagul. fekk sëriñ bi génnagul. nit ñi di ñuuramtu ci suuf. nit ñi di ñuuramtu ci suuf. ah Cheikh mii de. ne ah Cheikh mii de. ni maam Cheikh Anta. ni maam Cheikh Anta. li ko sëñ bi may dafa ëpp. li sëñ bi may dafa ëpp. ndax xam nga ne colom gii de. ndax xam ne colom gii de. waru ko andi ci sëñ bi waru ko andi ci sëñ bi. ba sëñ bi ne tëll génn. ba sëñ bi nee tëll génn. am lu mu doon buublu. am lu mu doon buublu. ci am néeg ci am néeg. kenn ku ne jug di seete loo foo foo ko tonne def ko ca. kenn ku ne jug loo ko buubee ak foo ko tonnee def ko ca def ko ca. mu summi garam bu bi. ne garam bu ba yéem di ko coow maam Cheikh Anta summi garam bu ba mu soloon. jël mbuub mi def ci. jël mbuub jël jël jël la sëñ bi doon buublu nee na buub ko ci def ko ci. kon daa ton tontul sëñ bi nit ñi. kon daa tontul sëñ bi nit ñi. sëñ bi nag eh, Cheikh mii ngeen di gis nag. sëñ bi nii Cheikh mii ngeen di gis nag. wàccaayam yi lu mu rëy rëy. wàccaayam yi lu mu rëy rëy rëy. jubluwu ci dara. jubluwu ci dara. lu ma yëkkati. lu dul yëkkati. lu ma yëkkati. lu may yëkkati man. ak lu ma dara jaal kon moom diggam ak sëñ bi. ku ci dugg ku ci dugg lu sam xel dem rek. lu sam xel dem rek. doo xam foo ca doo xam foo ca yem. kon nag ñu ngi jeexale. ñu ngi jeexale nag. ñaan yi ñaan yi. ci njabootam gi ci njabootam gi. ndax dañuy ay jàmbaar. ndax dañuy ay jàmbaar. misaal ngeen ci ñu ngeen bokkal sëñ Tuubaa ñëpp. misaal lañ ci ñiñ bokkal sëñ Tuubaa ñëpp. njabootu sëñ Gaawaan gépp. bàyyiwuma génn kër nag. nee ma génn kër. misaal lañ ci ñoolem ñu bokkal yoon wi ñu bokkal sëñ Tuubaa. ndax lii leen sëñ Tuubaa defal. ndax lii leen sëñ Tuubaa defal muy Daaru Salaam waa kër maam Cheikh Anta. kenn mënatu ko nangu. kenn mënatu ko nangu. waaye nag ni ngeen di laxasaayoo. waaye ni ngeen di laxasaayoo. at mu jot. at mu jot. addee ji ngeen koy dajale. addee ji ngeen koy dajale. te bu ngeen ko yemale woon seen bopp it. te bu ngeen ko yemale woon seen bopp it. du tee mu àgg. du tee mu àgg. loolu misaal la. loolu misaal la de. mu soññ yoon wépp. di soññ yoon wépp. kon day mel ne. nee day mel ni. seen i jëf yéen. seen i jëf yéen. dara waru ci woon xaj. dara waru ci waru ci woon xaj. nee dara ci war dara waru ci woon xaj. yàlla def nag. yàlla def nag. xam nga ni Cheikh Mouhamadul Mamoun. xam nga ni Cheikh Mouhamadul Mamoun. ba mu ko tàmbalee. ba mu ko tàmbalee. boobu Cheikh Mamadou Fadel. boobu Cheikh Mamadou Fadel moo fi ne. di tabax jumaa ji di tabax jumaa ji. bu dajalee addi ji. bu dajalee addi ji. bu noppee ab almet lay jël. bu noppee ak almet lay jël. teg ko ci teg ko ci. kon kon. loolu lu yàgg la. loolu lu yàgg la. ku fi mas a agsi rek. ku fi mas a agsi rek. ci ñu ko wuutu. nee ci ñu ko wuutu. def nga ca la nga war a def. def nga ca la ca war a def. ndax da koy yokk. ndax da nga koy yokk. ba nga ne fii mënatuñ koo fii mënatuñ koo weesu. ba mu àgg ci moom mii. ba mu àgg ca moom mii. di sëriñ Abo. di sëriñ yàlla defal ko ci ndimbal. yàlla defal ko ci ndimbal nag. ak tawféex ak tawféex. loolu nag ko xam dembam lool nag ko xam démbam. cër bi mu am. cër bi mu am. du la du la jaaxal. ndax man ba ma koy xam. ndax man ba ma koy xam. yaakaar naa juróom-ñaari at la naa juróom-ñaari at la am. na ay at yu bëree bëri. am na ay at yu bëree bëree bëri. yoo xam ne saa su ma bëree jàng. yaa yoo xam ne saa bu ma bëree ca jàngukaay ba. fii laa daan fii laa daan ne ci moom. waaye melokaana ba ma xamoon ci moom démb. waaye melokaana ba ma xamoon ci démb. ak yu ma xam ci moom ak xam tey yii ci moom. dara soppiku ci ne dara soppiku ci. te la ci gën a yéeme. te ci a yéeme. diggam ak sëriñam bi. diggam ak bi nag. ni ko toppee woon. ni mu ko toppee woon. ba mel ne waxuma la rakkam sax. wo ne ba mel ni waxuma la rakkam sax. waxuma la doomam. waxuma doomam. waaye ab taalibeem ab taalibeem. moo tax cër bii mu am tey. moo tax cër bii mu am tey. dara jomb ko ci. dara jomb ko ci. kon dañ koy ñaanal. kon Mbàkke dañu lay ñaanal. ni ko suñu borom defalee tawféex. ni la suñu borom defalee tawféex. ba jumaa ji sotte ci ak ak ak nekk ba jumaa ji sottee ci sag nekk. muy lu ñu ko dencaloon. muy lu ñu la dencaloon. kër gi itam nag. kër gi tamit xam ngeen ne fu Sëñ Tuubaa njëkk am kër xam ngeen ne fu Sëñ Tuubaa njëkk am kër buñ ko xobi woon or ñu ko xobi woon oor wala xaalis sax wala xaalis sax lu jaadu la lu jaadu la ndax xam ngeen ne kër gi kat ndax xam ngeen ne kër gi kat jëmmal la ci jublu jëmmal la ci jublu waaye yaakaar ngeen du yàgg-yàgg ba mu fanaan fi waaye yaakaar ngeen du yàgg-yàgg ba mu fanaan fi du yàgg-yàgg ba mu dëkk fi bu nee du yàgg-yàgg ba mu dëkk fi waaye borom nag waaye borom nag ko defal ci lu mel nii luñ ko defal ci lu mel nii rek asaka yi asaka yi lañ ko war a defal lañ ko war a defal la ñu ngi jeexale foofu kon ñu ngi jeexale foofu kàddu yi di soññ bokk taalibe yëpp di soññ nag bokki taalibe yëpp ñu xam ne lu ci waay def ñu xam ne lu ci waay def sa bopp sa bopp nga sa bopp rek nga ko defal ndax ndax ñoom kat ndax ñoom kat muy njabootu maam Cheikh Anta muy njabootu Serigne Gaawaan Cheikh Sidi Mokhtar la seen maam meloon la seen maam meloon seen waajur mel ko seen waajur mel ko seen sët yi noonu lañ mel seen sët yi noonu lañ mel de seen lépp Sëriñ Tuubaa seen lépp Sëriñ Tuubaa la koo ci gis koo ci gis ak bëggam sëñ Tuubaa bëggam sëñ Tuubaa doo xam ku ci raw doo xam ku ci raw kon taalibe yi ñu ngi soñ ñëpp kon taalibe yi ñu ngi soñ ñëpp di ko tàmbalee ci suñ bopp ne di ko tàmbalee suñ bopp ñun ci ndigalul sëriñ Abou Mouhamad Mbacké nee ci ndigalul sëriñ Abou Mouhamad Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ko ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ko ba yéeneem ju jërë ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ bi ba yéeneem ju rëy ji mu am ci liggéeyal ko sëriñ bi suñ borom àggale ab liggéeyam suñu te defal ko ci lu kawe njortam te mi ngi nuyu bokkam yi fi teew yépp nee na mi ngi bi nag bu ko yëkkatee nee na nuyoo bi nag bu ko ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am di kilifaam di kilifaam di léppam di léppam mhm. nga xam ne du dugg ci lenn mbaam yi génn ci lenn te du ci ndigalam la ko defee nga xam ne moom mii de du dugg ci dara wala muy génn ci dara ci lu dul na ndigalul sëñ Mountakha la ko defee mhm. ba yëkkatee liggéey bi moom la ci waxtaan ak moom tàgg ko ca moom la ci waxtaan ak moom tàggu ko ci. mu rafetlu ko jox ko ci ndigal. mu jox ko ci ndigal. bi ñu àggee ci bis bi. gis nañ ndaw ndaw ndaw boppam yi mu fi yebal. gis nañ it boppam yi mu fi yebal. nga xam ne fu ñu ko gisee mel na ne gis nañ ko. nga xam ne bu ko gisee mel na ne gis nañ sëñ Muntaxa. kon mu ngi teg nuyoo bi ci loxo yi. kon mi ngi toog nuyoo bi ci loxo di nuyu it kilifaam yi nga xam ne ñoom la àndal. di nuyu itam nag kilifaam yi nga xam ne ñoom la hmm. ah, lañ fi kër sëñ Touba gépp. ñoom teewaale ngi leen di nuyu di leen siyaare. sëñ ngi leen di nuyu di teg am ci loxol Cheikh Mouhamadul Moustapha. moom sëriñ Abdul Akram moom sëriñ di ko jëmale ci mboolem mbokk yi fi teew ci yoon wépp hmm. mu wootee bis bi mu wootee bis bii ñëpp gisandoo nañ niñ ko wuysee ñëpp gisandoo nañ hmm. gu ànd ak yéene wuy ak yéene ak hmm. ngi bëgge seenub teewaay ñu ngi ak seenub taxawaay

xolam sedd na. waaye daal xelam dal na bu baax a baax. xelam na di seereel na fii mu nekk. mu leen ko yón yóbbante ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom ngeen fi teewal. di leen ko yóbbante ci nga xam ne moom fi teewal. Mhm. ab taalibe Serigne Touba moo fi moo fi nekk. bu ko fas yéenee liggéeyal. bu ko fas yéenee liggéeyal. di ko jaarale ci ci buntam Cheikh Mouhamadul Mamoun. Hmm, hmm. te ci la yéene sax ba faaw. te nee na ci loolu ne ci la sax ba faaw. Hmm. ñu xamal ko. xamal sëriñ bi ne ko. moom ci boppam. moom ci boppam. ak lépp lu aju ci moom. mu ngi tege ci ab loxoom. mi nekk ci ginnaawam. nekk ci nekk ci kanamam. nekk ci kanamam. te fas yéene ànd ak moom liggéey boobu yi. fas ko yéene ànd moom ci liggéey boobu rek. liggéey bii mu fas yéene sumb bu fii tey. mel na ne moom lañ koy defal. ndax sëriñ Touba lañ koy defal. ndax Serigne Touba barab bi barab boobu Serigne Touba la. barab bu ko ñor. te mu bëgg ko lool. mu yëkkati ko teg ko ci loxo yi ku mu bëgg te wóolu ko. te doyloo ko. te doyloo ko. muy Cheikh Seydou Mokhtar. muy lu sëriñ gaawaan waxtaanee sëriñ Tuubaa ngir yebal si ko fii mu ne Cheikh Mouhamadul Mamoun bi sëriñ gaawaan waxtaanee sëriñ Tuubaa ngir yebal si ko fii la hmm. ko sëriñ bi yeewi mu ñëw la ko sëriñ Tuubaa yeewi mu ñëw ba muy ñëw dane ko nee ba muy ñëw da ko ne demal toogal ma Daaru danaa la fekk kenn nattul woon ne Sëñ Tuubaa fekk na ko fi. waaye kenn mhm. saa su ne day gën a feeñ. te saa su ne day gën di feeñ. nag neen li tax seen teewaay moom neex ci moom. bi rëy ci moom te neex ci moom. seen teewaay yi day wane ne Sëñ Tuubaa nangu na liggéey bi. seen teewaay yii day wane ne Sëñ Tuubaa nangu na liggéey bi. Mhm. ndax seen jëmm yi fu mu teew. ndax seen jëmm yi fu mu teew. bëtub bëtub Sëriñ Tuubaa lañ leen fii xoole bëtub Serigne Touba rek kon li ngeen ko defal yëg na ko gis na ko. kon lii ngeen ko defal yëg na ko gis na ko. Mhm. na ñaan nii ngeen fi teewe ñu di ko tàmbali. nee na ngi ñaan ngeen ñaan ci barkeb Serigne Touba. mu nekk fi ba àggale ko ak jàmm. mu toog fi ba ko ak jàmm. ñu àndaat toog fii di ko ubbi. ñu àndaat toog fii di ko ubbi. barkeb Serigne bi. ci barkeb bi. Mhm. seen bi nee na mi ngi leen seeral ak cantamit ci njabootu boppam gi. sëriñ bi nee mi ngi leen di seeral ak cantam ci njabootu boppam gi. moom la yàlla teg ci suñu kanam. nga xam ne moom mii la yàlla teg ci suñu kanam. muy njabootu sëñ bu maam jëm. ñu ànd ak moom ànd bu rafet. ñu ànd ak moom ànd rafet. mu sant leen démb tey door a ñëw. mu suñu moom moom ci lenn. mosuñu koo seetaan ci seetaan ci lenn. lu mu bëgg ña nga ca. lu mu bëgg ña nga woote ña ca ànd ak moom. lu mu woote ña bi mu tàmbalee bi mu sumbee liggéey bii. ba mu sumbee liggéey bii. waxtaanee na ko ak ñoom. na ko ak ñoom. ak ñi ñu ko seqal ñëpp.

yor kàddoom yor kàddoom ñu ngi ci kilifa yi ñu fàttaliku ko te ñaanal ko bu baax a baax kon na a xam na ne jataay bi bu fi nekkoon mooy mooy jëwriñ mooy yor bi bu ne hmm, teq-teq yaram rek mooy li tee ñu gis ko fi teq-teq yaram rek moo tee ñu gis ko fi hmm, waaye xolam a ngi fi yéene ma ngi fi waaye xolam a ngi fi yéene ma ngi njaboot gi topp ci ginnaawam ñëpp ñu ngi gi topp ci ginnaawam ñëpp ñu ngi fi. na mi ngi sàkku ci kilifa yi ñu ñaanal ko bu baax. nee na mi ngi jotal ak cant it. suñu bokki taalibe yi nga xam ne. yi nga xam ne. ñoo feete ci kër gi. ñoo feete ci te ku ne xam na seeni taxawaay. ne seeni taxawaay. ci ak nangu. ak nangu. ak bëgg a liggéeyal sëriñ bi. te dañoo wax nag

fu ñu leen woo ci liggéeyub sëriñ bi. luñ nekkoon bàyyi nañ ko. te luñ am lu ne àttan ko cee def. waaw kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. kon ñoo ngi leen di ñaanal jekku ndigal yi. suñ borom yaatal jamono yi. suñ borom yaatal jamono yi. ba yéen yiñ ëmb ci liggéeyal ko sëriñ Tuubaa. ba yéen yiñ ëmb ci na sëriñ Tuubaa fàggu fi kattan yoo xam dana ko mën a jëf. ko mën a jëf. sëñ bi daal xolam sedd na guy. yërëm na leen ci jataay bu yàgg bi. moo tax mu ne nañ ko jotalal kàddu yi. waaw santal ko ñëpp. képp koo xam ne it war ngaa jàpp ci liggéey bi. ak noo ci mën a jàpp na la wóor ne loo ci def. sëñ Tuubaa nga ko defal. wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun barab bi kon xam na ne ci xarumaatullaahi la bokk. barab la bokk. foo fi jaar mën ngaa jàpp ne Sëriñ Tuubaa toog na fa. jaam na fa yàlla. jaam na fa yàlla. bi. liggéeyal na fa yonent te benn jataayub Sëriñ Tuubaa dong dong de. ci barab. ci barab. bàyyi na fa lu defal adduna ak àllaaxira. bàyyi na foo xam ne ñaari at jëm ñetti nekk na ko fa. def ko barabu boppam. bu doon ko dara di taq ci xolam dañ ne taq na ci xolam. Hmm. ndax ba muy nekk ci tumuranke ga. ba muy nekk mu toll ma ngi koy fàttale ko di ci mébé di ci mébéte dellusiwaat. di ci ko ñaan yàlla. kon ku ne xam ne na barabama. kon ku moo tax sëriñ bi. moo tax sëriñ yéene jëm ci am. yéene wóor ne lépp lu mu ci def. nañu wóor ne lépp lu ab tàmbaleel waaye yéenam ëpp na foofu.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 اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي